الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار bokki ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala di ko dimbalikoo di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu jubal ñu di ko ñaanal mu jéggal ñu ñu rëcc rëcc bàkkaar di ko ñaan mu teg ñu ci siraatal mustaqim moom mi nga xamante ni képp ku mu fa teg texe ga waaye képp ku mu seetaan ci maandu tey ba nga jàdd boobu yoon boo ko amul kenn ku la mën a jubalaat yal nañu yàlla tekki siratul mustaqim ñuy seede ni moom yàlla amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom te waruñu ko bokkaale ak kenn di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam di rafetal ba ba bis denc di taxaw mbokk yi yàlla suñu borom ñuy dénk ci ragal yàlla ni ay yéen ñi gëm na ngeen ma ragal ragal yàlla mooy di def ay ndigalam comme ni mu ko diglee bàyyi ay tereem comme ni mu ko teree mu ne nag dëgg-dëgg ragal la woon rek bu ñu faatu mukk loolu dañoo doon ay dëgg-dëgg jullit moom yàlla mu ñuy dénkaat nii ay yéen nit ñi na ngeen ragal seen boroom mi leen sàkk ci benn bakkan muy aadama alayhi salaam mu boole leen ñoom ñaar amal ci ay njaboot yu góor ak yu jigéen yàlla dañu digal nag ni nañu ragal yàlla ci mbokkoo gi dox suñu biir te xam ni ëllëg dinañu ko laaj mbokkoo gi doxal suñu biir yàlla dañu nag dànkaafu ci ni na ngeen xam ne man yàlla maa ngi leen di fuglu leen bàyyi xel ci lépp lu ngeen di def moom yàlla moo ñuy dénkaat ba tey ci alquran moo ni ay yéen nit ñi ay yéen way gëm na ngeen ragal yàlla tey wax wax ju rafet wax ju baax wax ju yiw wax juy defar ndaxte loolu mooy liy jëmbat ci seenu nekkin ci seenu société ci àdduna bi al islaam mooy ak rafetoo ak benn ak nekkin bu rafet te loolu su amee rek yàlla wàcce yërmande suñu kaw mooy mu jéggal ñu suñuy bàkkaar yàlla dañu dénk nag ci nihayatul aaya bi ni képp koo xamante ni bëgg nga lii na nga topp fi yàlla waxee ñun ci alquran karim ngay doxee alquran di doxe it sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla wax ni nañ ko roy yàlla mu ne képp ku def lii de faqad faaza fawzan azima di nga texe texe ku mag di ëllëg mooy mu dugal ñu aljanna yàlla yàlla defal mbokk yi suñu xutba yeewee ñu ngi doon wax ci ay axlaaq ay jikko bi ci mujj di jikko ju tedd joo xamante ni moo samp lislaam muy dëgg ñi nga xamante ni noonu lañ woon sax ci alayhi salaatu wassalaam ñoom nangu lool nañ ko ni ku dëgg la ndax koo xamante ni du wax lu dul dëgg ci mbindeef bokk du ko sal yàlla ki gënoon a sës ci moom di Abu Bakrin moom it dëggu lañ ko dàkkantale turam moo tax sax mën nga ni turam réer as-siddiq ndax dafa mos a dëggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp luñ ko mën a wax ci moom noonu la yàlla it di taggee ñi nga xamante ni ñooy saxaaba yi ci ni ñoom ñi bàyyi woon seen kër bàyyi seen alal lépp riir ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu leen yàlla dëgg ëllëg muy alqawtul azim ñoom it bi leen yàlla di tàgg daf ni ñooñ la ñu dëggu ni mission boobu yàlla joxoon alayhi salaatu wasalaam muy lislaam muy law ba egsi fii ak fépp ci àdduna bi dafa am dinañ jikko joo xamante ni ñu ko jikko woon la ñu rax ci boobule société ñu leen di wax ay munafiquun mooy des hypocrites ñooñu alayhi salaatu wasalaam bi muy jóge Màkka di ñëw Madina pacte la signé woon ak ñoom waa Madina gépp nag ñëpp waa Madina ci ni comme que ñoom jóge nañ Màkka ñëw Madina war a tasaare fii diine l'islam bi képp ku jóge ca àll ba ñëw war a jaamaarloo ak ñun ñun ñëppay mànkoo ànd doon benn ko la xeex ak ñoom ñun ñëpp ne waaw naka de foofu ci seen biir amoon na ay munaafiqun ay naafeq mbokk yi lii di dëggu ci yoonu yàlla képp ku ko def di nga dund sa teeyu bakkan waaye di nga am ruux bu dal koy jaamu yàlla di nga it am xal xel bu dal ak yaram boo xamante ni lenn ni fitna du ci am contraire bi nag képp koo xamante ni ni faax moo nekk ci yow kooku doo dund dund bu set doo jaamu yàlla bu wér doo dund ak nit ñi dund bu ànd ak sakina sa yaram it du ko fekkee ndax doo am jàmm lii dina ak munaafiq yàlla moo leen démasqué ci alquranul karim mu ni wa min annaas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi al axir wa ma hum bi muminin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na am na ci nit ñi kon yàlla mu ngi démasqué ci mission bu rëy bi mu jox yoon bi alayhi salaatu wasalaam te war koo jox képp koo xamante ne nag yow missionnaire nga ci kaw suuf mu ne am na ci nit ñi ñoo xamante dañuy wax amanna billah gëm nañ yàlla wa bil yawmil axir gëm nañ tamit ni àdduna bi kenn saxu fi bis dina ñëw boo xamante ni bis du ñëwaat àdduna day jukki ñoom loolu la ñuy wax ci seen lem yàlla mu ne wa maa hum bi muminin waxuñu dëgg de ñooñu di wax loolu loolu dëggul ci ñoom yuxaadicuuna allah walladina aamanu dañuy jéem a tuur lëndam yàlla ak jullit ñi te fekk ni ñoom seen bopp la ñuy yeew wa maa yaxdaruuna illa anfusahum wa maa yashurun te duñu sentir ne sax ñu ngi yeew seen bopp wala iyaadu billah mbokk yi kon naafeq mooy bi nga xamante ni dafay fësal ak lislaam di toogandoo ak jullit ñi ngeen bokk di yeewu di toogandoo foo waxee yàlla mu ni islam foo waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu fàttali fekk na boobu noonu la muy wone bokkul ak la mu fas ci biir ñoom ñoo ñëwoon ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yow de gëm nañ ni innaka la rasulullah illa yonent yàlla bi yow yaa ci nekk yàlla yàlla ni yonent bi salaa sallam wallahu yaalam innaka la rasul man yàlla xam naa ni yow yaa yonent man maa la fi teg wante wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaadibun maa ngi lay seedal ni ñii liñ lay wax nii du dëgg ay naafeq la mbokk yi lii di ak nifaar muy naafeq ñaari xaaj dañ ko xaaj borom xam-xam bi ci gën a dangereux wa ak nifaaqul intiqaadi mooy naafeq ku pas-pas boobu da ngay weddi yàlla ci sa biir weddi yonent bi salaa sallam bañ ko ci sa biir te boo taxawee bu mës a sëñ say kàddu du sa col du ni ngay doxee du ni ngay waxee du ci feeñ kooku mooy bi nga xamante ni mën na day mag bu jëfu doomu aadama da lay génne sax ci lislaam da nga war a yeesuwaat beneen bi nag mooy al nifaaqul amali mooy bi nga xamante ni moom weddi woo yàlla weddi woo yonent bi waaye li ngay jëflante ak nit ñi moo sincère da ngay clignoter gauche droite droite loo wax dañ ni waaw la fekk ne am na leneen loo xam ne yaa ngi ko laal ci suuf ci suuf loo ko wuute ak li nga xamante ne mooy li ngay wane moo tax alayhi salaatu wasalaam yàlla yónni woon suñu ginnaaw bi yàlla démasqué wax naa fekk ni muy mel moom alayhi salaatu wasalaam moo ñëwaat ci xadis di ñu wax ni jikko yii fu ngeen gis mu meloo bu leen ne ko naa fekk nga ndax loolu yeneen atta mooy dal sa kaw wante jikkoy naafiq xamal ne mu ngi ci moom jikko la wax kenn warul jàppal nit ki naafiq naafiq na loolu yeneen xàcc moo dal si kaw mu ni arbaun man kunna fihi kaana munaafiqan xaalisan ñeent yii nag fu mu daje ci yow kooku naafiq fiir nga cent pour cent waaye képp koo xamante ne nag am na ci benn jikko ci jikko yi xamal ne am nga jikkoy naafiq ba ba jikko jog di dañ ci yow ba ba nga koy fóot mu dañ ci yow bi ci njëkk mooy ida tumina xaani mu ni koo xamante ni su nit ñi amee ci confiance ci yow yëkkati dara dénk la ko bii nit ñi la dénk dañ laa wóolu ba dénk la nee na nga war leen nga def lu wuute ñoom la ñu amoon yaakaar ci yow mu ni wa ida xaddasa kadaba mu ni boo demee ba gis koo xamante ni lu mu wax njar ko maanaam fenn ci lu mu wax rek bu ko tàmbewul tàmbalewul ay nar dina ko mujjee wala mu dugg ci biir moom mais faw mu am loo xamante ne moom du dëgg benn partie boo xam du dëgg mu ne loolu ko jikkoo xamal ne am nga jikkoy naafiq ba nga koy bàyyi mu ne wa ida aahada gadara bii nag bokkul ak bee nit ñi am confiance yow dénk la mais yow yaay doon dig nit ñi dinaa defal lii dinaa la taxaw ci nii yow yaay digg ba nit ñi am confiance ci la nga leen wax ñu wuy si la boo defee lu wuute la nga leen diggoon rek loolu da ngaa war naa fekk jikko jikkoy naa fekk mu ngi ci yow wala iyaazu billah beneen bi ci jikko yi yonente bi salaa sallam wax ko mu ni wa ida xaasama fajara mu ni koo xam ne ni jikkoy naa fekk mu ngi ci moom ba tey mooy koo xamante ni su ngeen meewoo woon ba muy wax ak yow day ëppal ca la muy wax day jalgati dina la wax ba wax la loo xamante ne boo moytuwul di nga tëbu wala boo moytuwul di nga xeewu fekk na boobu la muy wax lépp ay sos la yoo xamante ne daf la bëgg a détruire rek mbokk yi ci yàlla lii di al munafiq yàlla mu ni inna al munafiqin يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس يلا من يوانا بقي نافع أي ملكانا مني suñuy suy julli moom kese këpp këpp lay def ndax kenn gisu ko kooku yàlla taxul mooy def xamul lan mooy julli waaye bu nekkee ci biir nit ñi di julli moom da nga naan kii mooy le saint ak jàngu alquran rukoo ya di sàmm defar waat lépp fekk bu wéetee moom leneen lay def moom leneen façon julli lay julli loolu moom ba xeetu jàmbu yàlla la yàlla moom ni ñooñu bu ñu taxawee di julli xaamu kusaala xëyal leneen la ñu won leneen li ci nekkaat ci ñoom mu ne yuraawuna annaas lépp lu ñuy def mu tudd jaamu yàlla buñ koy def dañuy bëgg nit ñi di ko gis pour di ko tudd defatuñ ko te yàlla tax ba tey it wala yazkuruna allah illa qalila li ñuy tudd yàlla lu néew la doo leen fekk ñuy jàng alquran nga xam ne kii da koo dëkkoo wala mu nekk tout le temps nga koy gis muy kuy tudd yàlla même bu yorul course sax mu ngi tudd yàlla ndax nekkul kurus moom moom nga war a yor rek mën di tudd yàlla waaye tudd yàlla moom saa su nekk dafa war di sax ci sa làmmiñ comme ni yoon saa salaam waxoon waa ji ne ko li ma lay dégg mooy fexeel ba sa làmmiñ bi mu fer ci tudd yàlla mbokk yàlla na yàlla musal ci lii bi am ni ko ndaxte yonente bi salaa sallam nee na ëllëg yomal xiyaam am na ñoo xam ne bu ñu dekkee dañ leen di takkal drapeau drapeau wu lan drapeau wu naa benn li kulli gaadirin liwaa'un yuqaalu haada liwaa'u fulaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ëllëg yawmal qiyaama dañuy yëkkati drapeau bi ne drapeau bi di wa ko moom subhanallah ndax naa fekk la woon ci kaw aqulu ma sami'tu wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ñëwaat di suñu taxaw ñaareel ci lii di al nifaaq muy naafeq muy jikko joo xamante ni tas na kër tas na dëkkandoo tas na pénc tas na àdduna bu lëmb kenn ku ci nekk war a doyloo lii borom bi subhanahu wa taala dig ñi nga xamante ne ñoo nekk naafeq ngir nga bàyyi ko yàlla moo ne munafiquun ñii di naafeq yi fii darkil asfali min annaar fa ma leen di waaj a ëllëg yàlla waxul safara kese mais ci xur wa ca doom ma ca biir doom ma ci safara foofu leen yàlla musal wala iyaazu billah mbokk yi àdduna bi la dara jarul ci kaw suuf lu doomu aadama bi def ci ñaawte rawatina ak nifaaq ba ëllëg yàlla di la fayee li nga xamante ne mooy këru ba azab ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك السوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله